di ndokkeel it eh, suñu mbokk yi jàngalekat yi eh, ci soññe gi ñuy soññi eh, ngir ñu gën a mën a wéyal ci liggéey bu mel nii waaye mbokk mi bu fekkente ni abonné go ci seen bi mën nga bës bouton abonnement bi bësaale cloche bi nga xam ne lépp lu bees ci fànn bi dana yegg si ba ci yow incha allah kon mbokk yi lii ngeen di jàkkaarloo nii moom mooy tontu question yi nga xamante ni moom laa mujj woon waxtaan ak yéen ci suñu dars bu mujj ndax dars bu mujj bu ngeen ko fàttalikoo ñu ngi doon waxtaanee lii nga xamante ni moom mooy ajzaul jumla ajzaul jumla bu ci fàttali nee nañ ñett lay doon ndax jumla ngir ñu am ko dañuy am baat te baat dafa seetlikoo ci ñetti anam dafa am lu ñu woowee ismu ak fi'lu ak xarf bu dee ismu nag mën naa nekk boobu nit mooy ismul insaan wala boobu mala mu tudd ismul xayawaan wala boog mu tudd euh, mu nekk nabaat nabaat mooy gàncax wala mu nekk jamaat jamaat mooy loo xamante ni mënta randu mënta dem fenn euh, joxe woon naa leen ci misaal bu ma waxoon seize baa ngi nii seize bi euh, turu seize tur la waaye jamaat la niki noonu it ismu ay cheyin axar waxoon naa ne ismu ay cheyin axar mooy lépp loo xamante ni buñ la ko waxee da ngay xam ne lii turu dara la waaye mënoo ko làmb daj ko loolu moom mooy ismu ay shay'in axar daanaka xeetu tur wu mel noon moom moo ëpp ci tur yi kon ñu bàyyi ko xel baax a baax kon lii moom mooy tontu question yi nga xamante ni moom lañu ñu jotoon a gis ci bii jàll ndaw ndax ci am si lay dalaa wax ne la nga lal ko ñaata tur doomu aadama ñoo ci nekk niki noonu naata. Euh, turi xayawaan ñoo ci nekk ak nabaat ak jamaat kon euh, lii moom mooy tontu euh, jëmi sual boobu bu fekkente ni gisoo woon dars bu mun ngaa dellu ci suñu dars bi weesu mooy ajzaul jumla asila yi moom lañ mujjee na wax kon lii moom mooy tontu bi nga xamante ni moom mooy tontu li nga xamante ni laajoon nañ ko ci nga génne tur yi nekk ci biir jumla yi ak afaal yi ak euh, ahruf yi kon loolu moom mooy euh, jëmi jumla bi kon ba tey euh, fii tamit dalaa sàkk woon nga indil ko juróomi jumla yoo xamante ni benn bu nekk dafay tàmbale ci turu boo ko indee ci anam gu mel ni dana baax boo ko indee ci anam gu mel ni dana baax ak juróomi jumla yoo xam ne benn bu nekk tamit dafay jeexee ci turu xayawaan moom it boo ko indee ci anam gu mel nii dana baax boo ko indee ci anam gu mel nii dana baax xanaa mu des rek ma liirala li comme maasuñu ko al muallimu yasrahu ad darsa mooy jàngalekat bi mu ngi sara euh, leçon bi at taalibu yuzakiru élève bi wala boog sàkkukat xam-xam bi mu ngay mu ngay muraajan mooy mu ngay xoolaat ay ay ay ngir mën ko al muhandisuuna mahiruun al muhandisuuna mooy ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllu tabax ñooñu kat dañoo muus muhammadun yan je muhammadun yan saxu ixwaanahu muhammad ma ngay dénk ay mbokkam mooy ay mbokkam mën naa doon ay rakkam mën naa doon ay magam almuhim muhammad mu ngi leen di dénk almumarridaatu rahimatun almumarridaat mooy sage-femme yi jigéen yi kon jamu mumarridatun almumarridaatu mooy sage-femme yi rahimatun dañoo am yërmande akaltu laxmal baqari waaye lekk naa yàppu ganaar rakibal farisul xisaana maanaam gawar bi mooy ki war fas wi rakiba war na alfarisu gawar bi alxisaana euh, fas wi akalal athadu algazala mooy gaynde gi lekk na euh, lii nga xam ne mooy kéwél gi kéwél gi kéwél mooy algazalatu kéwél gu jigéen daraba muhammadun alqittata muhammad dóor na muus mu jigéen mi muus mu jigéen mi muhammad dóor na muus mu jigéen mi Eh, sami'tu sawtal ximaari dégg naa kàddu mbaam mi kàddu mooy ŋaax bi mbaam mi ŋaax dégg naa ko mu ne fii alkalbu xayawaanun wafiyun hmm, xaj mooy dawkat bàyyi ma la boo xamante ni bàyyi ma bu mën a eh, sàmm kóllëre la al asadu xayawaanun muftarisun gayndekat ab euh, bàyyi ma la boo xamante ni dafay fàdde al taakulu euh, alfiraan mooy muus yi dañuy lekk li nga xamante ni moom mooy ay janax mooy janax yu bëri nii lañ koy nii lañ koy def jomoo ci arab firaanun ay janax yu bëri jamalu yaxtamilu al atasha mooy gileem dafay mën a dékku li nga xamante ni moom mooy ak mar mooy gileem dana ji dana mën naa dékku li nga xamante ne moom mooy mar alxawru yëkk wi yaxrusu al arda mu ngay eh, bay suuf si wala boog mu ngay jeqi suuf si ngir bay kon alxawru yaxrusu al al arda zara alfallaahu mooy baykat bi eh, bay na lii nga xamante ne moom mooy bale akala alximaaru hmm, albarsim mbaam mi lekk na gàncax googu ñuy woowee barsim barsim xeet la ci xeetu gàncax yi nga xamante ni dañ koy jox li nga xamante ni mooy mbaam yi ñu koy lekk bu doon ci ñun suñu làkk mu ne su ko woo woowee mboob mi mboob mi zaraatu buzuural zura mooy jiina zaraatu mooy bay naa wala jiina buzura zurati mooy Euh, doom yi nga xamante ni moom mooy doomi mboq doomi mboq laa la laa bay man laa bay busuur busuur mooy pepp yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour buñ bëggee euh, ji dara mu sax léegi pepp yi nga xamante ni mooy dellu ci saxal li nga xamante ni mooy mboq moo tax mu ne zaraatu buzuura zurrati zurra mboq euh, xat zuhuri mooy bëgg naa xeetu fleur yi xeetu fleur yi dama ko bëgg man mi wax raaytu ashjaara zaytuni gis naa eh, garabu li nga xamante ni moom mooy azaytun kon lool moom mooy firi bi waaye liñ ci jubloon rek mooy eh, xool ba xam tontu woon nga laaj yi la laajoon ci weesu xëy na dañoo firi woon baat yi rek ngir bëgg la dolli ci li nga xamante ne moom mooy ay ay ay mufradaat ndax loolu it ci mbir mi la bokk kon nag euh, mbokk yi euh, tey jii suñu darsu tey mu ngi wax ci euh, taqsimu alfiali bi atibaari zamanihi wala bi atibaari zamanihi taqsimul fiali bi atibaari zamanihi mooy séddale jëf sukkandiku ci jamono ya mu xewe bi ci njëkk nag ñu mën cee wax al fi'lul maadi al fi'lul lan mooy fi'lul maadi ci mujjanteelu dars bi danañ ko xam fi'lul maadi jëf ju weesu nu muy mel naka la jëf ji mel bañ ne la jëf ji jëf ju weesu la fi'lul maadi bu ko defee ñaareel bi mooy al fi'lul mudaari'u mooy fi'lul mudaari' mooy jëf ji nga xamante ni ñu ngi koy jëf te pareeguñu wala jëf ji nga xamante ni danañ ko jëfi moom it dana bokk ci suñu dars tey eh, kon ñu bàyyi ko xel Euh, moom jëmi li nga xamante ne moom mooy fi'lul mudaari kon euh, bi mu bi ci tege mooy al fi'lul amr wala boog fi'lul amri mooy jëf joo xamante ni bañ koy jëfkat dañ ñu koo digal loolu moom la ñuy woowee fi'lul amri moom it dana bokk ci euh, li nga xamante ni moom la ñuy fas yéene gis tey incha allahu rabbal alamin kon dañuy tàmbalee ci li nga xamante ni moom mooy al fi'lul maadi bu ko defee wax misaal yi bu ko defee dem ci xaayda bi leeral ko buñ ci noppee ñëw ci euh, fi'lul mudaara doog a ñëw ci fi'lul amri kon suñu leçon bi tey incha allah mu ngi séddale ko ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi dinañ xam lan mooy fi'lu al maadi li ñaareel bi ñu xam lan mooy fi'lul mudaara xaaju ñetteel bi ñu xam lan mooy fi'lul amri kon mbokk mi ñu tàmbale ci euh, tàmbalekaay bi mooy fi'lul mu fi'lul maadi fi'lul maadi mooy lan kon yi Euh, fii am na ñett ci suñu loxo ndeyjoor fii tamit am na ñetti ci suñu loxo càmmoñ waaye dañuy euh, njëkk liir li nga xamante ni moo ñu féete ndeyjoor liiraale li nga féete càmmoñ firi ko doog wax euh, liñ ci jubloo jàng dëgg-dëgg jara alkalbu jara alkalbu jara alkalbu waqafa arrajulu waqafa arrajulu daa daa alkitaabu kon ñetti misaal yi buñ ko doon firi jara mooy daw na alkalbu xaj bi mooy xaj bi daw na xaj bi daw na jara daw na alkalbu xaj bi waqafa taxaw na arrajulu góor gi góor gi arrajulu góor gi daa réer na réer na daa mooy na alkitaabu téere ba mooy téere bi réer na kon ñu ñëw ci suñu ñetti misaal yi nekk ci suñu càmmoñ daqati saatu daqati saatu daqati saatu jaatil bintu jaatil bintu baadatil baadati dajaajatu baadati dajaajatu kon buñ ko doon firi daqati saatu mooy montre bi sone na montre bi sone na hmm, montre boo xam ne Euh, bu waxtu euh, midi jote mu sone nga bëgg a xibaar loolu nga ne dàqati saatu dàqati saatu jaa atil bintu xale bu jigéen bi ñëw na jaa atil bintu jaa atil bintu mooy xale bu jigéen bi ñëw na baadati dajaajatu baadati dajaajatu mooy ganaar gu jigéen gi nen na kon mbokk yi fii bu ngeen seetloo ci ni may waxee dafa mel ni fii ba ma ne jaraa alkelbu mooy xaj bi daw na kon dafa mel ni dama leen nettalil xibaar bu weesu jaraa mooy daw na daw na ab jëf la waaye jëf ju weesu la ndax xaj bi daw na ba pare bu fi nekkoon du ma wax jara kon jaraa al kelbu xaj bi daw na ba pare xaj bu daw ba pare laa lay wax nii waqafa ar rajulu góor gi taxaw na kon fi'lu waqafa huna danga gis na fii taxaw na laa wax taxaw na ba pare kon góor gi taxaw na daa al kitaabu daa mooy réer na réer na téere bi réer na kon dangay gis ne jara ak fa ak daa yooyu yëpp day tegtale ne jëf ji bañ koy wax kat daa weesu niki noonu it dàqati saatu dàqa mooy sone na ba pare sone na ba pare dàqati saatu mooy montre bi sone na ba pare jaatil bintu xale bu jigéen bi ñëw na ba pare xale bu jigéen bi ñëw na ba pare baadati dajaajatu mooy ganaar gi nen na nen na ba pare kon dangay gis ne lii ab jëf la waaye jëf ju weesu la lii ab jëf la jëf ju weesu la lii ab jëf la jëf ju weesu la kon dangay gis ne tey jii liñ ko xool ci am si lay njëkk yi moom mooy al fi'lu al maadi nii nga xamante ni noonu euh, lay demee kon jara waqafa daa daqati ak jaati ak baadati yooyu yëpp ay jëf la yoo xamante ni jëf yu weesu la euh, te ñu war koo bàyyi bàyyi xel ci saa buñ ko gisaatee ci suñu yeneen misaal incha allah kon euh, mbokk mi léegi lii moom mooy tënk li nga xamante ni moom mooy misaal yi doon wax léegi bu ñu waxee al fi'lul maadi ci arab mooy huwa kullu fi'lin yadullu ala xusuli amalin fi zamanin fi zamanil fi zamanil maadi fi zamanil maadi alfi'lul mudaari mooy alfi'lul maadi mooy jëf ji weesu xëy na fi'lul mudaari bi nekk fii moo tax may wax fi'lul mudaari waaye fii alfi'lul maadi mooy jëf ji weesu jëf ji weesu wa kullu fi'lin mooy eh, jëf jooju ñu doon wax sànq jaraa daw na daw na huwa kullu fi'lin ma bépp jëf joo xamante ni yadullu dafay tegtale ala xusuli amalin ci amuk jëf fi zamanil maadi ci jamono ji weesu niki jara ak waqafa ak daa da nga gis ne yooyu yëpp ay jëf la yoo xamante ni am na tabbi na ba pare waaye jamono ji ñu koy nettali daa nekk jamono ju wees moo tax fi'lu boobu dafay nekk fi'lul maadi kon naka laay xamee fi'lul maadi fi'lul maadi ni nga koy xamee mooy bépp jëf joo xamante ni tegtale na ak amam mooy bépp jëf joo xamante ni dafa day tegtale ak amam ci jamono ju weesu mooy amam dafa lënkaloo ak jamono ju weesu moom lañuy ñuy woowee fi'lul maadi bu ko defee xalaatal tuuti indil ma benn fi'lul maadi ci sa xel ba baax na kataba baax na ak ban ba baax na ndax dem na ba pare Euh, misaal yi bëri bëri mënees na ko ci am kon dañuy tuxu rek ci suñu ñaareelu tomb ci leçon tey bi mooy alfi'lul mudaari li tax ñu boole ko mooy ñett yëpp dañoo bëgg nga xamandoo ko benn yoon ci benn dars nga xam ne kon euh, loolu mu doon wax ne euh, al kalimatu salaasatu anwa ismun fi'lun wa xarf waxoon na la lan mooy ismu léegi nag moom la lan mooy fi'lu dalay wax maanaam fi'l yi nu mu demee maadi jël nañ ko léegi mudaare moom la ñu fas yéene jëlaat léegi ci amri la ñuy mujjee al amsila misaal yi mu ñu jox ci fi'lul mudaari agsilu yadayya agsilu yadayya agsilu yadayya albathu thiyaabi albathu thiyaabi nalaabu bilkurati nalaabu bilkurati namsi fi lxuquuli namsi fi lxuquuli yanbaxu alkalbu yanbaxu alkalbu yantabihu alxaarisu yantabihu alxaarisu taakulu albintu taakulu albintu tasbulu alwardatu tasbulu alwardatu kon mbokk yi ñu ngi génn léegi ci fi'lul maadi ak ay misaalam ñu ñëw léegi ci fi'lul almudaari ak ay misaalam arsilu yadaya mooy maa ngay raxas sama ay loxo maa ngay raxas samay loxo kon jëf laay def albasu siyaab yi maa ngi sol sama yére maa ngi sol sama yére nalaabu bi bil kurati ñu ngi fo ci bal bi ñu ngi fo ci bal bi namsi fil xuquuli ñu ngay dox ci biir tool yi ñu ngi dox ci biir tool yi bu dee xaqlun rek mooy benn tool waaye al xuquul mooy ay tool yu bari kon namsi fil xuquuli ñu ngi dox ci biir tool yi yan baxu mu ngay bëw pareegut alkalbu xaj bi yantabihu mu ngay bàyyi xel mu ngay bàyyi xel kon pareegut ci bàyyi xel gi alxaarisu gardien bi alxaarisu gardien bi takulu mu ngay lekk kan albintu xale bu jigéen bi tasbulu mu ngay mu ngay mu ngay mu ngay ras mu ngay ras alwardatu fleur bi mooy fleur baa ngay ras mooy bu fekkente ni fleur bi danga ko witt ci ndey ja teg ko ci jant bi bu ci yàggatu dafay lax moom la woowee zabula ci euh, fi'lul maadi bi waaye comme fii mudaari la moo tax mu ne tasbulu dana lax dana lax wala boog mu ngay lax te pareegul kon gis ngeen baatu arsilu baatu albasu ak baatu nalaabu ak baatu namsi yi yëpp da ngay gis ne ay jëf la yoo xamante ni mu ngi xew jëf jaa ngay xew jëf jaa ngay xew pareegul ngeen gisaat fii yan baxu ak yan tabihu ak taakulu ak tasbulu ngeen gis ne tamit yëpp ay jëf la yoo xamante ni moo ngay xew pareegut jëf la yoo xamante ni moo ngay xew te pareegut kon bépp jëf boo xamante ni mel na nii jëf joo xamante ni bañ la koy wax xam nga ni pareegut ba jamono jën la ko waxee wala xam nga ni dina danañu ñëwi xamal ne loolu moom la ñuy woowee al fi'lul mudaari kon fàttekul lan mooy fi'lul maadi fi'lul maadi mooy jëpp bépp jëf joo xamante ni bañ la koy nettali daa tegtale weesu loolu moom la ñu woowee fi'lul maadi waaye bépp jëf joo xamante ne dañ la ko wax te jamono ji ñu la koy wax jàllagul wala ñëwagul dangay gis ne fi'lu boobu moom la ñu woowee fi'lul eh, al mudaari kon nga bàyyi ci xel bu baax a baax kon foofu boo xoolee da nga gis ne li tàqale diggante fi'lul maadi ak fi'lul mudaari fi'lul maadi mooy jëf ji weesu mu mudaari nag mooy jëf joo xamante ni ma ngay xew ci jamono jii wala boog dana xewi arsilu maa ngay raxas pareeguma bokkut ak ma ne rasaltu ndax bu dee ci maadi bi fii damay wax rek ne xasaltu raxas naa raxas naa ba pare comme pareeguma ci raxas bi moo tax ma jëfandikoo arsilu bu ko defee bu ñu demee léegi tuxu léegi ci xaayida bi dana leen wax nan la ñuy xàmmee eh, li nga xamante ni moom mooy fi'lul mu mudaari' fi'lul mudaari' niñ koy xàmmee mbokk mi mooy ci anam gii di ñëw fi'lul mooy jëf ju teew wala ju ñëwi mooy lan jëf ju teew wala ju ñëwi wa kullu fi'lin yadullu mooy bépp jëf joo xamante ne day tegtale ala xusuli amalin ci amuk jëf fi zamanin xaadir ci jamono ju teew lii fi zamanil xaadir fi zamanil xaadiri ci jamono ju teew awil mustaqbal wala jamono ji ñëwi maanaam daa teew wala muy ñëwi wala budda nag mooy munta ñàkk an yakuna mu nekk moom al fi'lu mudaari mabdu an mooy boo xamante ne dafay tàmbale bi xarfin ci araf min ahrufi al mudaari ci arafi mudaari yi kon feelul mudaare moom neex na xàmme ndax moom faaw mu tàmbalee ci benn araf ci araf mudaare yi araf yooyu mooy lan waxiya mooy alhamzatu mooy hamza arsilu wan nuun ak nuun namsi wal yaa ak yaa yanbahu wataa ak taa tazhabu ci misaal kon ay gis ne feelul mudaare moom neex naa xàmme feelul mudaare mooy bépp jëf joo xamante ni day tegtale lu teew wala luy ñëw waaye nag dafa fekk mu tàmbalee hamza wala nuun wala yaa wala taa loolu nag ñëwoon na ci suñu misaal yi weesu ndax euh, fii bu ñu laajee lu tax lu doon mu daare ndax dafa tàmbalee hamza dafa tàmbalee hamza albasu lu tax mu doon mu mudaare dafa tàmbalee hamza te daa tegtale jëf ju teew nalabu lu tax mu doon mu daare dafa tàmbalee nuun nam si lu tax mu doon fi'il mudaari dafa tàmbalee nuun yan baxu lu tax mu doon fi'il mudaari dafa tàmbalee yaa dafa tàmbalee yaa yantabihu lu tax mu doon fi'il mudaari dafa tàmbalee yaa takulu lu tax mu nekk eh, fi'il mudaari dafa tàmbalee ta tasbulu lu tax mu lu tax mu nekk fi'il mudaari ndax dafa tàmbalee ta kon nag gis ne alhamzatu wan nuun wal yaa kon yi moom mooy eh, araf yi nga xamante ni fi'il mudaari boo gis faaw mu am ko rek faaw mu am benn ci eh, araf yi nga xamante ni moom la ñu gis léegi ci misaal yi kon neex naa jàpp moom li nga xamante ni moom mooy al fi'lu eh, al mu mudaari'an moo tax eh, mu ne al fi'lu al mudaari'u huwa kullu fi'lin fi'lu mudaari' mooy bépp jëf joo xamante ni yadullu dafay tegtal ala xusuli amalin ci amuk jëf fi zamanil xaadiri ci jamono ju teew awil mustaqbali wala jamono juy ñëwi wala budda nag mënta ñàkk an yakuna mu nekk moom fi'lul mudaari an yakuna al fi'lul mudaari an bu tàmbale bi xarfin ci araf min ahrufi al mudaari ci arafi mudaari wa hiya araf mudaari yooyu nag mooy ban ak ban alhamzatu wan walyaa wa atta kon loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo tënk dars bi nga xamante ni moom mooy al fi'lu mudaari kon ñu ñëw si suñu dars bu mujj dars bu mujj bi nag mbokk mi moom mooy fi'lul amri na nga ko bàyyi xel bu baax fi'lul amri mooy jëf joo xamante ni dafay tegtale ne eh, jamono dañ koy jëf jamono jooju dañu ko digal jamono jooju dañu koo jigal mu ne ci amsila yi ilab bil kurati ilab bil kurati at'im qittaka أطعم قطك نظف ثيابك نظف ثيابك نم مبكرا نم مبكرا تمهل في السير تمهل في السير تمهل في السير أجد مدغ الطعام أجد مدغ الطعام كن ألعب wala boog ilaab bil kurati fowal ci bal bi fowal ci bal bi ilaab bil kurati fowal ci bal bi atim xittaka atim xittaka kon leelal sa muus mi yow mi ko am atim xittaka dama lay digal nazif siyaabaka setalal sa yére setalal sa yére nazif setalal siyaabaka sa yére nam nelawal mu bakkiran ci bu teel mooy nelawal ci bu teel tamaxal fi sayri defal ndànk ci dox gi defal ndànk ci dox gi xëy na kon danga war a am koy xaar mu leen naan eh tamaxal fi sayri defal ndànk ci dox gi ajit matarat taami xëy na kon ki eh, Abdoulaye Fall dana xool kan lay kan lay waxal fii ajit matarat taami mooy na nga fexe ba mën a yooyu li nga xamante ni moom mooy ceeb bi ndax am na ci ñen yoon dañuy jékki-jékki rek eh, warax ñam wi moo tax mu ne ajit na nga eh, man madara taami Euh, yey li nga xamante ni moom mooy ñam wi yey ñam wi kon dafa am ñenn ñoo dañuy dañuy xëy na lu lu gaaw gone gi nga nga jàkkaarloog moom muy lekk lu gaaw rek nga ne ko eh ajit matara taami ajit matara taami kon euh, lii moom mooy fin loolu am li gis ngeen ilaab fowal ataym leelal nazif setalal nam nelawal tamahal ndànkul mooy defal ndànk ajit manal gis nga kon yii yëpp danga gis ne ay jëf la waaye jëf la yoo xamante ni ak amam ndigal da cee lalu ak amam ndigal da cee lalu ndax fi mu toll nii bu fekkente ni yaa ngi bëgg a xàmmee fi'lul amri bala ñoo dem ci qaayida bi dama lay jox benn secret bu ndaw mooy saa boo gisee ab jëf jëf joo xamante ni dara jiitu ko mooy dara jiitu ko jëf ji rek nga gis te ci mujjantelu jëf gi nga gis ci masque bii ñuy woowee sukuun kon jàppee ko fialul amri gis nga sukuun bi gis nga bi gisaat nga bi gisaat nga bi gisaat nga bi kon fialul amri mun te ñàkk sukuun waaye nag bu fekkee ne am na lu ko jiitu nag moom faaw nga bàyyi xel bu baax a baax ndax léeg-léeg na luy jiitu fii loo xamante ne fi'lu bu nekkee fii da koy jazam kon loolu tamit ab dars la ñëw ci kanam waaye yow na nga jàpp rek ne fi'lu bu ko dara jiitut bu ko dara jiituwut mu am sukkoon ci mujjantal ga te tegtale ak jëf moom ak amum jëf jàppal ne fi'lu boobu fi'lul amri la kon euh, loolu mooy li nga xamante ni moom moo aju ci am sila yi nga xamante ne moom la ñu joxe ci fi'lul amri kon ñu dem ci qaayida bi xool ba xam loolu ñu fay fekk euh, bu ko defee ñu mën a tàggatoo incha allah kon euh, mbokk mi gis nga qaayida bi moom it nekkul lu gudd daa wax ne fi'lul amri mooy jëf ji tegtale ndigal huwa kullu fi'lin mooy bépp jëf joo xamante ni yutlabu bihi des na sàkku ci jëf jooju jëf jooju xosóolu shay in amuk dara xosóolu xosóolu shay in amuk dara fi zamanil mustaqbal ci jamono jii di ñëw ndax boo xoolee ci misaal bële ilaab bil kuraati kon foowegoo ak bal bi ma ne la nag ak bal bi kon dama laa digal nga foo bal ak bal bi ci jamono yii di ñëw ndax newoon nañ jamono ji teew léegi-léegi jëf ju ko tegtale fin mu daari àla waaye bii nag jëf la joo xamante ni day tegtale luy ñëwi waaye dafa ànd ak ndigal bu fekkee ne day tegtale luy ñëw te ànd ak ndigal fee mu daa reen lay doon waaye faaw jëf bi e, tegtale luy ñëw ba noppi te amut benn araf ci araf yi mu daa yi ñuy jàngoon mooy alhamzatu wa nuun wal ci njalbeenu jëf ji kon al fi'lul amri mooy jëf joo xamante ni dafay lalu ci ndigal wa kullu fi'lin mooy bépp jëf joo xamante ni yut labu dees na sàkku des na sàkku yut labu dees na sàkku bihi ci jëf jooju usulu shay'in amuk dara fi zamanil mustaqbal ci jamono yii di ñëw maanaam du léegi waaye ci jamono yii di ñëw lañ sàkku pour nga def ko ilab hmm? euh, at'im niki nazif yooyu yëpp dama la sàkku nga def dara waaye dama laa ko wax nga def ko ci say jamono yi di ñëw kon mbokk mi dafa mel ni fii la ñuy yem ci dars bi nga xamante ne mooy suñu ñetteelu dars ci eh, an-nahul waadih bu juz'ul awwal eh, ngeen ci doon ànd ak seen mbokk Oustaz Sidi Cissokho waaye duma la bàyyi dama lay jox ay tamarin yoo xam ne bala ñoo dajewaat ci beneen dars bi eh, bu ko defee tamarin yooyu nga may jéem a defal tamrin mo moo bokki moo nekk nii iqra al ibarat al atiya wa mayiz al afaal al maadiya wal afaal al mudaria wa afaal al amr kon lim sàkku ci yow mooy misaal yi ngay gis nii da koy liiral sa bopp boo ko liiree nga daal ci ràññetle misaal ya ci doon fi'lul maadi ak misaal ya ci doon fi'lul mudaari ak misaal ya ci doon fi'lul amr kon man dama la koy liiral rek waaye duma la ko firil ndax bu ma la ko firilee da nga koy yomba xam ndax lu tax mooy dama la wax ne la fi'lul maadi mooy bépp jëf joo xamante ni ak amam daa weesu fi'lu mudaare mooy bépp jëf joo xamante ni daa teew wala luy ñëwi la fi'lul amri mooy bépp jëf joo xamante ni daa tegtale luy ñëw te ndigal lal ko kon loolu bu fekkente ni firil naa la fii jumla yi dafay mel ni kon dama lay yombalal li nga xamante ni mooy laaj moo tax dama lay bàyyi nga xool misaal yi bu baax bu ko defee boo ko tontoo incha allah même boo ko bindee ci suuf commentaire incha allah bu ma ñëwee danaa la wax euh, li nga ci juum ak euh, li nga ci trouvé incha allah kon misaal yi moom moo nekk nii jana alfalaahu euh, qutna qutnahu ah wa baahu summa stara bi baadi thamanihi ma yaxtaaju ilay hmm, janaa alfalaahu qutnahu wa baahu summa stara bi baadi thamanihi ma yaxtaaju ilay نظر الطفل إلى الطائر وهو يحلق في السماء فأحب أن يطير مثله هبت العواصف ليلا فأطفأت المصباح واقتلعت بعض الأشجار سطى الذئب على الغنم فافترس واحدا واحدة وفر هربا mu ne fii adxili adxilil bustaana ba keroog misaal bii di tamit di jeex kom nii dafa mel ni temps yi ñu dafa xaw a moo tax dama la koy bàyyee bu ko defee nga euh, liir ko benn par benn ndax beneen beneen question baa ngi ñëw ci suuf question bi moom mooy nekk da qabla kulli ismin min al asma al atiya aw baadahu fi'lan madiyan yulaimuhu benn bu nekk ci yi di ñëw donc da ngay teg benn fi'lul maadi ci kanamam wala ci ginnaawam fi'lul maadi boo xamante ni dafay ànd ak moom al usnu mooy tàgg azujaaju moom mooy li nga xamante ni moom mooy weer alqalamu mooy big assamsu jant alxitaaru train albaxru géej Euh, athamaru meññeent almisbaaxu làmp kon yi ay euh, baat la yoo xamante ni da nga war a def li nga xamante ni moom mooy euh, fi'lul maadi ci kanamam wala ci ginnaawam xool fi'lul maadi bu la jubu rek nga def ko ci li nga xamante ni moom moo nekk foofu kon dafa mel ni mën nañoo yem foofu ba ëllëg ak jàmm incha allah ndax temps biñ ci jël dafa bari kon mbokk mi bu fekkente ni abonné go ci chaîne bi mën ngaa bës bouton bouton bi nga xamante ni mooy bouton abonnement bi euh, ba saale kolos bi ndax lépp lu bees nga mën cee jot incha allah kon wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu